salaamaaleykum mi cher internet solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di am mbégte comme nuñ koy defee à chaque fois rek di leen daal di euh, présenter seen émission bu mag bii di au cœur de l'actu ñu daal di waxtaanee li nga xam ne rek moom mooy euh, mbirum actualité moo tax ni tey. ñu daal di fi euh, dalal monsieur euh, Maguette euh, Wade nekk ancien directeur cabinet Sénégal rek bi nga xam ne rek Pierre Goudiaby Atepa moom moo ko daal di jiite tey mu daal dalal suñu plateau ma daal di ko jox kàddu gi rek mu daal di nuyonte ñuy bàyyi xel monsieur Wade ñu ngi nuyu bu baax. oui maa ngi leen di fay di leen nuyu bu baax di nuyu aussi. Mhm. seen téléspectateurs yi Solution TV. waay di nuyu askanu Sénégal. Mhm. di nuyu ñëpp. Mhm. ñu ngi lay fay bu baax a baax di la wax ne la dalal ak jàmm di jaajëfal bu baax euh, suñu mbokku internet yëpp yëpp yëpp ak fu ñu munti nekk rek di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di euh, nuyuwaat bu baax a baax ñu daal dugg directement ci li nga xam ne rek moom mooy bile waxtaan. Mm-hmm. Euh, en 2019 yaa nekkoon li nga xam ne rek moom mooy directeur cabinet Sénégal rek bi nga xam ne Pierre Goudiaby Atepa moom moo ko daal di ji moo ko jiite woon. Mm-hmm. ñu gis relation relation bi nga xam ne Pierre Goudiaby Atepa am na ko Ousmane Sonko te li ni mel dafay leer que ne ça date depuis. Euh, depuis des années surtout en 2019 oui c'est c'est vrai mais il faut ñu defal tuuti benn historique ba daal moo yóbbu Atepa si Ousmane Sonko ok euh, parce qu'en 2019 Atepa était candidat mhm. avec son mouvement Sénégal rek euh, bi ñu wax récalé mhm. euh, ah bon recalé la sinon sax bañ a dem la quoi dañ ñëw téye parce que euh, le défunt premier ministre à l'époque parlait de cinq candidats ñooy am. te loolu du luxus quoi kon lu ñu préparé woon la quoi denc ko def ko. Mm-hmm. alors si lañ toog ñu waxtaan ñu xool ñu ne euh, en réalité na euh, nañu mais kan moo ñu gën a jege projet ak programme pour ñu ànd ak moom. Mm-hmm. on a discuté. Et on a vu que ne parmi tout ceux qui s'agitaient autour euh, de ce pôle, il y avait que Ousmane très proche. Mhm. du programme de Atepa qui s'appelait Oser. Oser. alors euh, d'ailleurs sax doo wax dégloo Ousmane daf la daan wax après dafa jàppoon ne Atepa architecte rek la mais borom xam-xam la. donc ànd bi foofu la commencé alors ñu jël suñu bagage yëpp jamono boobu aussi. Euh, lépp loo xam ne rek préparé woon nañ ko ñun pour dem. élection ñu yëkkati jox ko ko. Mhm. foofu la compagnonnage bi commencé. et tombé aussi jamono yooyu euh, ñu lakk siège yi Ousmane. Mhm. bi nekkoon Yoff alors Atepa lui a offert son siège euh, euh, qui était sur la VDN. mooy bi ñu tuddee Kër Maodo. Kër Maodo voilà ok. c'est comme ça que ça s'est passé et le compagnonnage a continué euh, jusqu'avec la première coalition Sonko président. À cette époque Ousmane Sonko n'avait pas les moyens voilà. Non, vous savez que Ousmane il venait tout juste d'arriver tamit dans la chose politique xam nga politique moom dafa laaj ay mhm. la et comme aussi Atepa moment boobu moo fi gënoon a fës gën a jege aussi. Mhm. il a mis beaucoup de moyens et c'était normal. Mhm. parce que noonu la àndee quoi ak nit booy ànd ak moom. sa la ko mën a jàppale la nga koy jàppale on a lépp loo xam ne Atepa daf ko jëloon pour campagne ko dafa yëkkati jox ko Ousmane. cyclique yi moto yi. Euh, auto bi nga xam ne moo doon def sonorisation bi avec son groupe nga xam ne de jour comme de nuit Ousmane pouvait faire sa campagne c'est comme ça que ça s'est passé. Mm -hmm. alors si moment yooyu aussi dañ ko jox ko le siège qui est devenu aujourd'hui Kër Maodo. Kër Maodo et en ce moment. Uh-huh. Euh, bi ñu ko ko joxee aussi Ousmane était au deuxième palier man j'étais au premier. au premier palier. donc euh, ba benn instant. on a mm-hmm. partagé ba benn instant on a pris tout nag. parce que moment boobu à chaque fois que il voulait faire te for naa ci yow bay que yaa signé papier yëpp. Euh, non c'est-à-dire moment boobu euh, bi ñu leen joxee siège bi. Mhm. Euh, boobu amoon nañ beneen siège. bu bokk ak bi nekk Yoff donc foofu lañ doon nekk. Mhm. à chaque fois qu'il voulait tenir une réunion Guy Marie m'appelait pour me dire que doyen on doit tenir demain une réunion. il l'a fait une deux fois trois fois mais je lui dis que le siège Atepa daf leen ko jox et en ce moment bon on a compris que il fallait si ñoom bi ñu ñëwee nag alors j'ai tout ce qui était à leur disposition mm-hmm. muy suñ palier ñun ak seen deuxième palier on a tout remis ñu jël nag lépp Kër Maodo parce qu'en ce moment bon euh, euh, Atepa avait accepté d'être avec Ousmane Sonko sans condition Euh, donc dafa mel noonu dafa jël Sénégal rek Sahel ko foofu noonu. waaw c'était ça donc moo tax Sénégal rek euh, dafa. Euh, Sonko président ba juste après Sonko a jot na moom moo jot na Sonko. après. quand il a senti que ne dans jot na aussi euh, le président Macky euh, am na ñu ko fa nekkal wala bu ñu ñoo xam ne dañ leen di yónni ñuy yàq di saboter moom mi créé jot na il a démissionné pour refaire une nouvelle coalition. mais dafa am ñu doon wax que ni euh, le président Macky Sall kañ la sonn Ousmane Sonko mooy après les élections 2019 mais ak li nga may wax ni kon cela veut dire que ça date bien avant. non ça bien avant parce que xamoon nañ ne day ñëw parce que xam nga kuy wax dëgg. Hmm. ak kuy fenn c'est ça qui fait la différence il savait pertinemment que Ousmane va monter en flèche. Okay. donc ñoom bàyyi woon nañ ko xel. Oh. mais yàgg nañ ko sonal. voilà et voilà. daa fësul woon. ah non dafa fësul mais moment bi ngay xamee ne nag mënatuñ koo ñàkk bañ mënatuñ koo def ci suuf dañ ko war a fësal <laughs> si lañ ko fësal nag. Ah, mais moment boobu même durant la coalition Sonko président. bu ñu daan def même réunion ñun ñëpp leader yëpp nekk noonu si kaw si en bas ils étaient en avec toutes les forces de défense et de sécurité avec leurs véhicules et tout ça. di intimider yooyu yëpp am na fi ah. waaw ah ah, yooyu yëpp am na fi voilà. Mhm. kon xanaa du loolu moo waral euh, ki nga xam ne moom mooy Pierre Goudiaby Atepa relation man Sonko moo waral euh, mu doon médiateur ci diggante Macky Sall ak euh, Ousmane Sonko jamono ji nga xam ni ñëpp bëggoon nañ ab jubóo national am ci ñoom ñaar ñooñu de. mais effectivement il était au cœur de ce dispositif ce qui explique ne xam nga suñ demee ba l' avocat d'Ousmane Sonko sax amoon na tuuti difficulté pour gis ko Atepa am possibilité dem au kër Ousmane. <laughs> par le truchement du ministère de l'intérieur cela veut dire que ne ba ba waxtaan ñi ngi waxtaan mais moom boobu mi ngi si diggante waxtaan bi parce que Ousmane jarbaatam la en dehors que euh, option politique bi mu jël gëm na loolu. Parce que le président Macky Sall, à cette époque, hein, il a tout fait, il est venu voir même le président Atepa hein, et pour lui faire comprendre que dafa war a ñëw jàppale ko li mu def si campagne bi yëpp mu delloo ko mais Atepa a dit non joxe naa suma kàddu ba pare je suis ak ak lu ma si mënti waaw ak lu ma si mën a góobee dinaa ko gar Atepa est allé jusque ñu tëj ay comptam il a souffert lui aussi grand Atepa il a beaucoup souffert dans cette situation moom it. waaw ah, parce que il est là il a donné sa parole il soutenait Sonko alors donc lu lu mu si góobee rek dina ko gar parce que c'est un homme de parole aussi mhm. ah. ok euh, ñu dugg si ci li nga xam ne moom mooy gouvernement bu yees bi gis nañ mhm. Ousmane Sonko euh, le premier ministre Ousmane Sonko ak euh, le président Bassirou Diomaye fay seen ay début ni ñu débuté ak sortie yi nga xam ne le président Bassirou Diomaye fay def na ko commencé ko ca Mauritanie Gambie Euh, Burkina Faso ak euh, dernièrement euh, Côte d'Ivoire la mujjee nan nga jàngatee sortie stratégique yi nga xam ne le président def na ko. ah mais xam nga le bon voisinage. Mhm. est très important te xam nga àdduna bi dafa yëngatu. Sénégal amoon nag diplomatie bu forte. Mhm. ñu respecté ko gëm ko. Mhm. le président Bassirou Diomaye s'il vient aujourd'hui au pouvoir ak ni mu ñëwee au pouvoir. war na. mu dem seeti les pays de la sous-région lu si mel ni Mauritanie Gambie anam que dañoo séq li ñuy ooyee par exemple yenn ressources yi nga xam ne adduna bi fu mu am day am coow. c'est vrai. muy euh, gaz ak pétrole donc bu demee waxtaan seeg Mauritanie euh, d'ailleurs dem ba gis nga lim jur luy tax mu am solo mooy. Uh-huh. ba mu demee gis na ne euh, ña séqoon war a Cosmos waroon lañ fa signé woon. signature bi ña nga jëlaat lañ waxoon ne moom lañ leen di fay ñu buggu koo yokk. Mhm. donc il a demandé des comptes par rapport à loolu bu demaloon peut-être mën na ko yéex a xam. rëq-rëq yooyu. Gambie aussi dem xool aussi ndax Gambie euh, dafa am solo ak Guinée-Bissau. Euh, mhm. parce que avec le conflit de la Casamance. Euh, zone arrière la en général bu ñu daan am ay jafe-jafe foofu. Voilà. donc waxtaan ak ñooñu tënk lu wóor dafay nekk lu am solo parce que. Mhm. comme gars yi dañuy faral def jël foofu seen ay base arrière parce que maa ngi rappelé loolu yàgg na c'était du temps de Diouf avec le général Dieng boobu moo yore la zone sud. Mhm. l'accord de Kay li ko andi woon parce que euh, la rébellion sonaloon nañ gars foofu benn moment boo xam ne l'armée dafa sukkuyo woon ba dugg biir Guinée-Bissau andi fa coow lu rëy moo jur l'accord de Kay cela veut dire que ne. yooyu pour muy bañ di am chef dañuy war di waxtaan avec honnêteté mhm. pour jàppalante pour que frontières yi am sécurité parce que y a d'autres insécurités yoo xam ne li koy gën di andi mooy tey l'Afrique est devenue un cercle de feu par rapport ak djihadisme yi am ak kon dem foofu am na solo euh, dem Mauritanie bi am na solo ndax dalal na xeli waa Guet Ndar dalal na xeli waa Guet ndax ndaxte ñoom aussi léeg-léeg ñàkk jën bi bi nga xam ne ñi fi jóge ñoo ko gën a yokk gën ko andi Mhm. moo doon poussé suñu ay doom di xuus bay laal zone yi maritime yi jàmbur ñooñu it di leen jàpp léeg-léeg sax dañ leen daan dóori bal ce qui n'est pas normal mhm. ndax tey euh, soo xoolee boo xoolee dernier rapport yi bu li jot a génn da ngay gis ne loolu mënu loon ñàkk parce que mhm. quand on parle que pour quatre cent mille tonnes par an bateau européen yi jël ça nous revenait que un virgule sept million d'euros cela veut oh, jën bi cent euh, kilo bi ñu ngi ko doon jëndee cent dix francs pour pour l'année loolu scandale mënul weesu loolu donc moo andi tey suñu doom yi di lab si biir géej euh, mhm. parce que gisatuñ jën moo andi euh, waa Guet Ndar yi aussi di def loolu mais dem bi fu président bi dem dala leen am na solo anaam aussi dem bi mu dem Côte d'Ivoire foofu sax xaw na andi tuuti coow si entre les panafricanistes parce que mhm. xam nga soo xoolee ku mel ni euh, Ouattara sur le plan de la démocratie mu jëw si troisième mandat yàggul ñu jàpp ay soldats ivoiriens euh, en Guinée mm-hmm. ñu fay def lu tegginoo lu deful xam nga kon kooku am na benn image bu ñu koy xoolee que ne moom si camp yi Macron la bokk et nouvelle nouvelles venues dafa benn dynamique boo xam ne c'est des jeunes ñu mm-hmm. am benn dynamique buñu ñu lancé boo xam ne anti système la donc bu demee foofu image bi pour les panafricanistes euh, danañ ci am tuuti jeune euh, pourquoi cette visite lan moo tax mu dem fa mais jàpp naa ne tout le temps un chef de l'État dinay am ruq yu muy nekk lu muy xam yow yodul xam mais ba léegi c'est la démocratie mm. euh, c'est la coopération bilatérale c'est très important d'aller voir les ces pays mais de la sous-région mais que Sénégal waaw non xam nga su nekkee problème de sécurité rek daf koo jar et nous avons une très forte colonie en Côte Euh, c'est-à-dire la la wax foofu kon ñoom Nathalie Yamb li ñuy kaas cest dire mooy ce brin de panafricanisme c'est-à-dire ces deux pôles yi nga xam ne dañoo jàpp ne dañ ko war a respecter uh-huh. courant bi ñoo ànd ak Macron courant bi c'est l'Afrique mooy les révolutionnaires te foofu àlakulli àlin sax jarul yàkkamti fa lañ jëm parce que Afrique doomam màgg nañ Euh, noot gi ñu tubaab bi noot day dagg loolu mënatul continuer c'est fini et ñoom ils le comprennent. voilà voilà et euh, régime bi parce que gis nañ ne si day début tantôt yaa ngi koy wax ci wàllum euh, jën bekkee noonu ndax accord de pêche bi nga xam ne jamono dañ koo daal di suspendre ba sax gis nañ ne ñenn ñi nga xam ne kii zone comme ni ñu leen wooy lébu yi mooy ñi nga xam ne ñu ngi napp ak yooyu noonu am benn contentement boo xam ni wane nañ ko ci régime actuel bi ak début am yi. waaw noonu lañ leen ko diggoon xam nga régime bi dafa lu ko fal. Euh, injustice ak restaurer la justice. xam nga euh, baadoolo yi ñoo leen fal. kon li leen fal ñoom mënuñ koo fàtte te loolu si la ñuy yëngu si lu ñuy dem anam sax am na ñoo xam ne xaw na ñoo yàkkamti tuuti. Mhm. et c' est très normal mais nag on est dans une république. et une république nag dafa am lu muy fonctionner. avec mhm. ses leviers yi nga xam ne parce que euh, warul ànd ak précipitation. il mhm. doit aller doucement et <clears throat> littoral bi wane na ko il faut qu'on y va doucement et que restaurer aussi xam nga nit. espoir da koy dundal. te tey euh, li jot a génn nii rek si bagage yi rapport yi yeeg audit yeeg yooyu. Mhm. ça prouve que ne ñii bu ñëwuloon du baax. waaw ah, loolu ñëw bi ñu ñëw euh, c'est une pour le pays euh, c'est important parce que si nañ espoir. Mhm. te nit dafa soxla espoir. Mhm. maintenant jublu si liggéey bi nag aussi dafay am solo yeneen yi si des ñu bàyyi ko les leviers étatiques liggéey ko. waaw ah, parce que sinon on va perdre trop de temps parce que yàq-yàq bëri na de. loolu sax. yàq-yàq bi sore na sore boo xam ne am na yoo xam ne bu ñu feeñee nawet bi dana commencé dégg naa sax démb kii dugg taw na. waaye xam naa ne yeneen yi nekk fi moom bu ko gaa yi gisee moom <laughs> waaw parce que gaa yi dañ doon saboté quoi. Mm-hmm. doy na waay mais tantôt yaa ngi brosse ci rapport yi te faw ñu taxaw ci parce que rapport yi euh, ñi nga xam ne dañ leen ci lim surtout euh, bi nga xam ne mën naa ni dafa tenir na leen euh, les sénégalais muy mbirum Prodac Mame Mbaye Niang ak ndax jamono jooju moo nekkoon ministre de la jeunesse kon mënuñu koo génnee ci acteur clé wu Prodac du coup buñ gisee boobu li mbir ñu gis ne of nag génnee ko ak Cour des comptes yi mu génneeg li ni mel euh, bañ ciy tudd ay ministre ki ci mel ni Pape Malick Ndour ainsi de suite là aussi dafay wone que ni euh, jamono jii nii am nañ li nga xam ne moom mooy liggéey bu am solo boo xam ne régime actuel war na ko mën a def rawatina bile euh, bile bile mbir muy mbirum Prodac. moom laa la xam nga daan am na pays yu mel ni comme ay Turquie ay Tunisie. Mhm. c'est des pays yoo xam ne ils créent de justices militaires pour les civils. xam nga le mal est profond yàq-yàq bi dafa sori mu mel ni benn xeeti saboté boo xam ne. Mhm. foofu laay waxee ne dañu war a def le maximum ba duñ ñu tardeel nañ jël des leviers yu am solo parce que si ça existe ah. yi ñu ngi fii on est dans une république ñooñu nañ leen topp ñu def li ñu war a def le président Diomaye il a sur sa table ses quarante rapports tiim na ko na ko joxe bu mu ko sax téye na dem mais le procureur faire le travail et c'est aussi mhm. ñoom ñu nekk ci leneen parce que sinon dañ leen di tardel il y aura beaucoup de bruit pour rien et nag et il faut qu'il aille nag jusqu'au bout nag de cette logique parce que il y a eu des morts il nit ñi xeex pour loolu te li ñu doon xeex effectivement gis nañ ni li ñu doon xeex ndekete lu jaroon a xeex la ah euh, il faut que justice soit faite quoi. ba teg ay lanceur d' alerte aussi ñoo xam ne dañuy alerter euh, ci bu ñu gisee euh, ñoo xam ne euh, ay yor nañ ko maanaam bu ñu amee ay preuve ci ñi nga xam ne dañoo jël alalu askan wi nañ maanaam nañ lanceur d' alerte boo xam ne le président Diomaye tamit teg na ko. waaw xam nga lanceur d' alerte yi. moi je dis que ne état dara gënu la état état lu mu bëgg xam-xam ko. xam nga lanceur d'alerte yi xam nga li si gën a bañ mooy wax lu la wóorul. Euh. ak fan ngay jëlee ji preuve ba xam nga feuille Youssou Ndiaye dafa amoon lu am solo lu mu wax. Uh-huh. Euh, l'enregistrement sans effet mënoo am leen di lundi 5000 ñu toog trois jours nga am 3 immeubles gagné woo PMI luxusoo. Uh-huh. da tojee. état mën na am possibilité. parce que dénonciation yi ñuy wax c'est vrai que il faut une loi pour protéger ces gens-là mais il faut qu'on l'encadre ñu encadre ko ba tey kuñ dénoncer yoon moo lay mais du lanceur d'alerte lanceur d'alerte seen rôle c'est de dénoncer jàpp njort dara ñëw wax ko gaa yi gaa yi gaa yi des enquêtes c'est c'est aussi tout que ça. avec des preuves aussi. avec des preuves. Ouais, et quand le président parle des prénoms xam na li tax mu naan ay prénoms am na lu mu am na lu xam. <laughs> effectivement am na lu mu xam ba ci euh, wàllum pêche bi sax ñu ngi ciy dégg ay euh, prénoms maanaam ñoo xam ni euh, voilà ci wàllu bateau yeeg li ni mel xam naa ne loolu tamit moom le président mu ngi ciy def liggéey bu am solo et aussi dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy mbirum foncier bi ndax gis nañ ne Pierre Goudiaby Atepa l'architecte loolu yàgg naa doon li nga xam ne moom mooy euh, xeexam ba ci décision président jomaay moom sax moo ko annoncé euh, Sénégalais yi. waaw mais euh, Pierre a commencé ce job bien avant Diomaye di nekk président. lu mhm. nekk dégg na ko si agressé nañ ko si lu nekk dañ na ko si ça a été toujours son cheval de bataille le littoral ba créé si am ay association yoo xam ne dañ ko si gunge mais man bi ñuy def affaire boobu moi je vais dire Euh, baadoolo yi ñoo fal ñi et boo xoolee le littoral ña fa ëpp c'est des ouvriers nekk ci ay chantiers. Mm. pour man il était beaucoup plus judicieux de les appeler parce que ku si nekk am nga immatriculation on les appelle et on les demande au lieu de les laaj leen seen ay kayit. Mm-hmm. ñi am kayit continuer ñi amul kayit taxaw parce que après finalement lan nga si gis. finalement on est revenu à, à, à mettre une pédale douce parce que <laughs> euh, euh, c'est comme ça. Mhm. aujourd'hui ñu ngi ñi am kay ñu ngi leen di bàyyi ñu ngi continuer même suñuy renégocier waat les contrats ça c'est dans le cadre de l'État. Mhm. et loolu euh, moo moo nekk parce que coowul suuf dafa yaatu. parce que littoral bi on parle on parle de de Mbourkat. de pompier. avec Adowa yooyu yëpp c'est c'est le foncier. te boo gisee ni ñu sax saaxee pompier. pose euh, jaay la mètre carré a cinquante mille. Euh, loolu si c'est c'est c'est un scandale et man dama jàpp ne sax gars yi bu ñu yëgaatoon boo defaloon dang sax ka Abdou sax mën nañ koo jaay. parce que foofu naare li ñu fa jënd li ñu fa jënd bëri na bëri boo xam ne mais liñ jot a tabax. liñ tabaxul moo ëpp liñ tabax. te ñu ngi dugg si biir ay Mbambilor ñu ngi commencé di jënd ay terrain naan dañu defar ay réseaux sociaux. Mhm. loolu so loolu xam nga euh, lu doy waar la. donc mbirum suuf même ki fi jógee boo ko laajee lu mu ne la 97 pour cent ci dossier ñu teg sama table suuf la mais moom amuloon fit lijjanti ko parce que moom da doon sédd boppam parce que yi ngay dégg nii yëpp benn prénom yëpp ñoom ñu ngi ci biir ah. mais aussi Ousmane Sonko avait alerté parce que euh, defoon na ab vidéo ci corniche bi. Hmm. wax que ni képp koo xam ni am nga fi maanaam tabax nga fi ak lu mu ci munti doon euh, buñ jëlee nguur gi dinañ raser lépp euh, Diomaye bien vrai que ne daf ne nañ nañ suspendre mais Ousmane Sonko moom raser la waxoon te hmm. lool li tamit mën nañoo dem ci ay jamono ñu raser immeuble wala restaurant yi nga xam ne ñu ngi foofu noonu wala hôtel. waaw mais loolu lépp tey nekk dans le cadre étatique xam nga bu fekkee ne le privé qui est Euh, l'investisseur qui est venu. Euh, moom nu mu def ba am këyit état ko jox këyit ban état ko jox këyit ndax ni ko ko joxe war na ko joxe maintenant si les nouveaux arrivants trouvent que ne ni ñu ko ko joxe war nañu ko joxe mais la mu fa investir aussi du ko perte dañ ko fay fay <laughs> mais ils peuvent raser mais ces investissements là ah, dañ ko koy fay su boobaa. c'est c'est comme ça que ça va se passer. est-ce que euh, lépp jaar na yoon non lépp jaarul yoon <laughs> loolu moom. ñi ñii nelaw sax xam nañ ne lépp jaarul yoon parce ñi fi nekkoon li jot a génn rek war na la nekkuñu woon si dëgg doxuñu woon dëgg ñoom seen bopp lañ fi nekkaloon di saboté man saboté laa ko tuddee les fois sax damay xalaat ne dañoo amoon ay problème bopp parce yenn nit mënoo dëgg sa dëkk sa askan di ko toroxal benn xeeti toroxal bi waaw parce que euh, man noonu laa ko mën a jàppe ah mm-hmm. waaw voilà mais aussi ci suuf si la ñuy desandi mais foofu noonu ca mburkat tantu yaa ngi koy wax ñi ngi génne ay personnalité euh, ñoo xam ni am nañ fa terrain Idrissa Seck am na fa 13 hectares euh, Pape Diop am na fa Youssou Ndour euh, Amy Ndiaye ñii bi ainsi de suite liste bi maanaam 11 personnalités yoo xam ni ñu ngi tudd seen tur ci wàllum suuf moo nekk ab mbir moo xam ne ab page ab séddoo boo xam ne aussi tamit personnalité wu réewu Sénégal def nañ ko. ñi ma la limal. waaw mais ñu ñi ñi ma limal tuuti nañ nee leen <laughs> affaire yi des na te bu bu génne bañ bu ñu yàkkamti rek et eh, du du du du Mbourkat kese du du du du du Thiès kese du Dakar kese c'est tout le Sénégal et ça a été toujours comme ça xanaa tey coow dafa soo xoolee su Diouf on a donné ici un ministre de la République huit mille hectares. xam nga fi ay deux cent ngay dégg. yàgg nañoo saax saax yi alalu Sénégal huit mille hectare noo koy joxe benn nit. te sous Diouf saa existait l'histoire de Mbane est là <laughs> si lu mujj population boo génne ne du si dal fii on parle de deux cent hectares trois cent hectares ça été toujours comme ça Pathio donc il faut même pas que gars yi il se limite sur le régime de Macky Sall il faut que ñu dellu gannaaw 2000 même bu ñu mënee dellu ba si Abdou Diouf dellu ba si Abdou Diouf c'est ça noonu la musa demee maintenant les Sénégalais ont décidé que ne dootul demee noonu moo tax affaire yi nii di feeñ. mais du ñooñu ñu tudd kese ah c'est toutes les personnalités autant politiques et religieuses et. voilà citoyens ah ñëpp sabar ko tas la seddoo la woon rek ah dañ doon saboté rek ah amul leneen maintenant ñii sont venus pour rétablir l'ordre euh, jàpp naa ne sax suuf si noonu mu bëri noonu buñ ko xaajalee lii ñu def ko comme souverainté alimentaire dañ ko bëgg. loolu mën nañ koo def ay tool xale yi bàyyi si ñu former leen. dans l'agriculture leneen lii peut-être mën on peut faire des logements sociaux et puis ñu ñu avancer tuuti quoi léegi gars yi da ngay dañuy tabax si kaw dañ jàpp ne bu ñu jàpp ne suuf dañu war a tabax rek ñu ne ñu dëkk non non non àdduna bi léegi romb na foofu dañu jënd si kaw di ko tabax on utilise de suite pour des euh, travaux de de champs et d'élevage c'est important. voilà ah, ci agriculture boobu. si lay ñëw mm, tout à fait. parce que autoroute de l'eau bi nga xam ni le président Diomaye aussi ngi koy wax. Mm-hmm. loolu tamit dafa nekk ab innovation boo xam ni euh, guléet ñu dégg ko ci Sénégal. mais euh, xam nga adduna dafay dox. Uh-huh. ku nekk cycle ba nga tombeel ñoom dañ si ci cycle de lumière. le progrès dafay avancer aujourd'hui progrès dafa toll foo xam ne mën nañ jël ces outils là transformer le Sénégal et c'est très possible d'autres pays l'ont fait avant nous dans la droiture dans la légalité et ça réussi ngëm-ngëm la ak pas-pas te ngëm-ngëm ak pas-pas ñoo leen di fi donc je demeure convaincu que ne aujourd'hui ils peuvent bel bien le faire uh-huh. mën naa ne suuf bi ngay wax ni tey par exemple soo xoolee. Euh, fii nii comment il s'appelle pompier. pompier bi ñu jël jox ko marocain yi Adowa. mais tey soo xoolee eh, le le le jeune frère du président du groupe xam Anas Chefrui qui est le président du groupe Malick Chefrui bi nga xam ne moom moo géré CIMAF la cimenterie africaine. mais nan lañ def ba am cimenterie boobu quatrième cimenterie boobu na Adowa lañ ko jox naari lañ ko jox. aw moment boobu Ali moo nekkoon ministre des mines. Aliou Ngoy waaw Simaf boobu groupe Adowa ñoo ko moom nan lañ def ba jox leen ko et pourtant d' autres sénégalais d' autres industriels sénégalais. ñi doon compétir pour am quatrième euh, cimenterie bi ñu xañ leen ko jël jox ko naar yi at si ban anam parce que c' est même naar ñoom ñoo moom Adowa euh, immobilier bi nekk Pompé ñu jaay leen le mètre carré à cinquante mille francs qu'est-ce qui s'est c'est grave c'est ñooñu ñoo tabaxal yi Maroc c'est pas une villa c'est un palais ce pas une villa ils l'ont construit ce palais léegi nag foofu nag appartement yi jot a génn kan ak kan lañ ca jox yan période noonu ñoo fa nekk na ko gars yi gas bu ko gars gas gasee danañ xam eh, nan la demee c'est ça la vérité euh, waaw c'est ça la vérité aujourd'hui ñi ngi encore si biir Sénégal ay boori Bambilor di ut ay suuf pour def naan dañu def ay ay ay ay logements sociaux nous avons nos propres industriels nous avons nos en BTT dañ leen jox ñooñu ñu liggéey bu loolu mooy yoon askan wi li ko gën a sonal dañoo jël lépp jox étranger yi. Mhm. mais kon ñun lañ banque sax Sénégal amatul banque kon fan fan nga jëm donc on ne peut pas parler de yooyu noonu yëpp dañ ko war a nag xool. Mhm. dañ ko war a toppatoo. waaw mhm. c'est très important pour man donc euh, problème yi suuf <laughs> moo tax gisoo ma lay tooñ yàlla def jàmm rek ñoom ñële gañewuñ mais buñ gañoon soo deful ndànk sax li ko li war pompier yëpp lañ leen di jox parce ñoom noonu lañ loolu lañ ok voilà kon mu nekk ay mbir yu grave yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku santante sa bëggoon naa la ko euh, souligner ci ba ngay wax ci wàllu suuf la kon bu ñuy gagné woon amaana li feeñ yëpp euh, du feeñ wala li waaj feeñ sax euh, mën naa ni askan wi duñ ci xam dara amaana yi tamit dafay daal di wane que ni nguur gi nga xam ne moom la ñu nekk nii am na benn. mbir mu am solo boo xam ne ñu ngi koy def mais aussi lii est du jël tamit seen temps bien vrai que ne c'est bon c'est bon aussi mais ak yàkkamti gi nga xam ne askan wi yàkkamti nañ ko ci matière euh, ci ay réalisation foofu lay waxee. waa loolu moo tax ma ne la. ma jox la l'exemple de la Turquie et de la Tunisie cest dire tey pour man. Mhm. dañu waroon créer benn tribunal militaire pour ces civils là xam ñooñu dañu dañu doon sabote dañu sabote dëkk bi ba dëkk bi métti. Diomaye mhm. continuer def son job def lem liggéeyam. parce que championnat économique bi koy xaar. Uh-huh. est beaucoup plus important. gis nga dama ne la ñoom li sàcc lépp. Uh-huh. ñoom ak ñi ko sàcc. bu ñu leen jaayoon ak projet bi fi mu toll ak li ñu ci war a def y' a même pas photo kon nañu liggéey pour éviter parce que xam nga damay bañ ñu dellu soit si l'étape de Karim Macky mu folklorique et ça nous retarde. Euh, Sénégal dafa toll foo xam dafa nekk si table d' opération. Uh-huh. il n'a pas besoin de stagiaires la a besoin des gens. très conscient très bien outillé et qui travaille foofu la affaire bi toll moo tax il faut qu'il fasse vite par exemple tey aujourd'hui euh, da ngay ne plusieurs cabinets par exemple tey ministériels mu lan lan moo tax mënuñoo def passation de service ça c'est de retards techniques mm-hmm. alors que li leen di xaar dañoo yàkkamti donc priorité yi urgente yi nañ ko xamee yi nga xam ne nag euh, am nañu ko mën a dox dox ko la ko nañ ko dox régler ko c'est c'est tout sinon on risque de de de perdre beaucoup de temps. voilà ah, effectivement. Ah. te euh, am na ci ay sénégalais yoo xam ni yàkkamti gi nga xam ni euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi koy wane aussi di la jaajëfal bu baax a baax a baax monsieur Wade. Mhm. mbégte la woon. Mhm. doon segg ak yow li nga xam ne rek moom mooy bile plateau bien vrai que ne l'émission bi gàtt na. mais mhm. aussi li nga xam ne jot nañ ko cee wax. am na solo bu baax a baax a baax te lii lañ soxla woon. sa xam-xam euh, ci li nga xam ne rek euh, xam nga ko bu baax a baax ci wàllu suuf si de suite euh, moo tax ñu lay jaajëfal bu baax a baax mbégte la doon seq yow bi di plateau. Eh, <coughs> man maa ngi lay xam di lay remercier. Mm-hmm. ça a été vraiment un plaisir di remercier aussi imam Cheikh Sall bi nga xam ne aussi. c'est c'est un combattant c'est un patriote. Mm-hmm. bu nekk nit ku baax. Mm-hmm. et je pense que ne aussi direction. religieuses yi nga xam ne ñu ngi koy créer pour que coow yi am au niveau de la religion Sénégal mën a wàññeeku. Ah am na fa place. Euh, ñu xool daal fi dëkk bi toll man li ma gëm. Mhm. Euh, ñu seet euh, les dignes fils de ce pays fu mu mënti bokk ñu bañ ko def coloration bu amee xam-xam. ñu jël ko parce que Sénégal il a besoin de tous ses fils on a accusé tellement de retard. Mhm. à cause de ces gens là. depuis nii la nekkee scandale yi doon am du temps de Senghor aussi kenn du ko mujj lijjanti. ay bato ga rek jaar nañ fi lu ne jaar nañ fi bon aujourd'hui euh, voilà. lii war nañ koo leeral parce que mënoon nekk président Anas Sefrou qui est le président du groupe Adowa uh-huh. son frère qui est le patron de Cimaf nga xam ne ñoom ñooy la cimenterie euh, de l'africaine nan lañ def bañ jox leen cimenterie au détriment des de des des des des, des sénégalais. Uh-huh. te am ay doomu sénégalais yu màgg am doole mënoon koo am la quatrième cimenterie loolu lu am solo la loolu lañ ko war a lijjanti. Uh-huh. xool suuf sa ndax la fa des sa pompe yu bëri na lool. li jot a feeñ ñu xool aussi préno fa nekk nañ fa jox apartement nan lañ leen ko joxe c'est important euh, et di exhorter nag euh, les nouvelles autorités. Uh-huh. ñu dem nañ liggéey ñi jox ko gars yi ñu def ko. dafay yombal mbir mi daal. surtout donc maa ngi remercier ñëpp di remercier euh, la jeunesse. Mhm. la jeunesse euh, sénégalaise. très courageuse. waay jàmbaar. et di leen ñaan nag ne affaire bi yombul. il faut y aller doucement mais aussi d' abord euh, c' est une révolution culturelle. Mhm. il faut que ñu ñu changer ni ñuy xalaatee pour mën a defar Sénégal accepter def ay sacrifices. c' est très important et que tamit le président ñu bàyyi xel. ce que l'on appelle les jakartaman ils sont nombreux dans le pays moi je pense que c'est des jeunes qu'il faut prendre très vite defar leen euh, utal leen formation dugal leen dans des circuits de formation parce que nit day am métier daal c'est important il faut pas qu'on laisse comme ça la jeunesse comme ça nañ leen organiser oo leen defar leen utal leen métier c'est important. incha allah merci beaucoup si Wade dañu lay jaajëfal bu baax a baax a baax sa disponibilité aussi di jaajëfal imam Cheikh sàll ak euh, ki nga xam ne rek moo nekk ci régie bi euh, di Serigne Fallou la ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak toute l'équipe de Solution TV ñu ngi leen waat bu baax a baax di leen joxaat di daje ci kanam tuuti ak yeneen i programme di si là portez-vous bien.